soo demee ba nga am problème ak ak ak ba Macky liggéey bu salte bi liggéey bu bon bi ngeen def nii kan moo leen di votel kan ci Ziguinchor moo leen di votel kan Balde fii la taxaw jàkkaarloog Robert Sagna ba mu gaañe coow jibul kenn gaañul kenn deewul Balde mii et pourtant suñu adversaire la mais on l'estime parce que il est responsable boo gisee Balde di communiquer ak Ousmane sax parce que c'est la Casamance c'est la Casamance waaw boo non c'est-à-dire ci laa gën a respecter Balde Parce que j'ai compris que, non, c'était responsable, quoi. Franchement. Bien vrai que, en nous politique, beaucoup de vision, mais quand même, qu'il Wallahi. moom xam na ni politique c'était pas de l'animosité et pourtant yéen a xeex Balde yow Doudou Ka xeex Balde ci ngeen bokk yéen yéen yéen yéen APR ñi ko xeex Balde ñi ko xeex ci ngeen bokk te Balde Balde na moom na na assuré ay gannaawama parce que yéen ñëpp ay traître ngeen ay doomaraam ngeen yéen ñëpp ay traître ngeen waaw parce que munu leen gagné <laughs> Ousmane Sonko lu mu la wax noonu la. man sa baay laa amaal affaire mooy Macky Sall sa baay Macky Sall Ousmane Sonko daf ko duma ci élection 2019 yi CEDEAO daw si au secours jàpp ci ñu jël sa sa nga xam ne amul sax parrainage teg ko deuxième position pour daw contestation yàgg naa leen wax xeexkat ngeen am kii descendante Ngaliou Sonko la Doudou Ka kii descendante Ngaliou sonk la xeex ngeen am du arrière. non xamul arrière maamam Arfam Bessir sonk dafa liggéey ñoom yàgg nañ leen toroxal ci gaabu yéen pël léegi fu mu ne nii soo wóolee sa bopp rek jëndal du da ngeen tëgg seen loi ba pare assemblée nationale ngeen yaakaar ni xoxatal bi day jóg. makisal moo la gën a xam ne taatu golo mooy na banxaas makisal Sall Doudou Ka moo la gën a xam ne taatu golo mooy na banxaas du fa amati de li fa xew nii du amati de soo leen wejjee rek jënd leen jënd leen sortez su fekkee da ngeen wóolu seen bopp ay góor ngeen jënd leen Ousmane mu ngi tourné sortez voilà werante xuxal te ki tubéy waaw yow Doudou Ka jëndal jëndal nga def caravane Doudou Ka boo sante ka rek jëndal Ousmane de jënd na lu mu leen wax def na ko de jënd na mi ngi jënd jox te dana fa jaar nag yow Doudou Ka boo sante ka nga wóolu sa bopp jëndal yow ak say nit boo leen jëndee ñu téegal seen ndey yéen ñëpp parce que Casamance soxlawul ay doomaraam yi mel ni yéen 40 ans Casamance boobu bomb yaa ngi takk 40 ans ñaata xale ñoo dee ci conflit Casamance bi ñaata nit ñoo dee ci conflit Casamance bi ñaata jigéen ñoo ñàkk seen tànk ci conflit Casamance bi doomu bu mel ni yow Doudou Ka amoo li ngay def lu dem Dakar di jëlee ay nervi yow ak seen nervi boo leen jëlee ñu sakk pañ sakk si ñaayu ji pour man ji jug ji tàmputi pour da nga gëm da nga gëm Macky Sall wóolu Macky Sall ak seen justice jënd leen ku fi jënd ñu doxal ndeem. mu leer nañ amul sikk sax jigéen yi doon yuuxu noonu fii ak kërën kërën euh, violeur dossier violeur accusation bi ngeen accusé Ousmane ko sax amu leen fit sax pour jëndee dossier bi ñemewu leen fi mu ne nii Ousmane Sonko moo leen di tongal Pastef moo leen di tongal avocat yi ñu ngi leen di tongal pour ngeen jëndee dossier bi ñu dem tribunal ñemewu leen ko jëndee lan la Bassirou Gueye procureur Bassirou Gueye lan lay téye dossier bi jëndee ko. fii kenn mënul tere Ousmane Sonko mu nekk candidat 2024 fii ñu nag yen fii di ngeen daw ngeen jën dëkk bi waaw di ngeen daw ngeen jën dëkk bi lu leer laa la ñu wax booy ba ngeen pare de ngeen takk seen tubéy te xam ne dana bokk ci élection 2024 waaw dana bokk wallahi ça sera la chasse à l'homme dina di ngeen xam ne yoo du jamais vu au Sénégal mooy am di ngeen yéemu sax nañu dem rek yéen ak seen justice la ca kanam raw li bët jaar ci suuf tànk ci suuf nañu dem ñu nag yéen Sénégal yëpp séeddi nañ gis nañ seen taxawaay instrumentaliser police instrumentaliser euh, euh, gendarmerie kenn mënul am jàmm mayu leen kenn jàmm ngeen foog seen baaya moom Sénégal nañu dem. du da ngeen pare nañu dem ñu xool mu Moutada wax na de mu Moutada wax na ba pare élection transparence et libre ñëpp bokk ci fii xeer fii wallahi duduka yow boo sante góor jënd booy jënd ñuy kat sa ndey <laughs> mën naa la ko xamal dabaax Malick boo sante kar ak jëndal yow ak seen nervi jënd yéen ñi doon yuuxu démb yëpp jënd leen jëlee leen wax bi fii du fi neex te am ngeen sens man bu ma bu ma nekkoon boor yooyu ngeen xam dina danaa enlever Doudou Ka dama koy jën dama koy enlever je vais l'enlever yéen yéen da ngeen dox sax di xam ñu leen gën a feebar yéen mënu leen xeex. munu la yéen ñëpp mu yéen a ngi ne mut tëj ngeen seen taat yëpp ne pat génn leen ñi doon xataraay way man inaako waa naa nekk inaako waa kërën kër sortez même les jeunes de Duduka génn leen ku ci nekk xam nga ku man sa baay ak ku moom Ziguinchor ak ki moom Casamance arriviste yi mel ni yu bon yi jóge Guinée Conakry yi yéen ñëpp ay arriviste yi ngeen ba ñuy téegal seen ndey Sékou Touré bu muy fëgg seen bàyyi seen maam yi ñuy fàq ci daw si ay tànku nañ ak seen caaye gàtt yi ak seen omb di dugg si booy Casamance ñun booba ñu ngi foofu ah. xam nañ ko baax dañ leen a xam bu baax depuis Ziguinchor ba Bignona Sédhiou Kolda yéen ñëpp da ngeen fàq ci àll bi ngeen dawoon On vous connaît. descendant Ousmane Sonko moo contrôlé 33 provinces de l'empire du Gabou sa descendante Ngani Sonko moo téye les 33 provinces de l'empire du Gabou mu ngi commencé Guinée-Bissau be Nioro sepp du hasard de fit bi mu jëne ni wax ci conférence de presse bi nii du hasard de ci deret bi la ne yàgg naa ko wax Macky Sall wax naa ko gëmu leen boo jënee mu téegal sa ndey yow Doudou Ka parce que da nga daw presse bi ñu ngi lay wut kenn mun la gis jëndal sotti yu salte yi ngeen def fii Casamance la yooyu amu fi fii politique fair play ku gagné nga jël. Balde fair play la def mu gagné Robert Sagnon jox ko mu nomme ko président d'honneur ñëpp ànd ak moom deret tuuru bakkan rotu yow duuru ka ngay tuur deretu Casamance te yow candidat lan nga fi def lan. ñii naan Doudou Ka moo fi def lan nga fi def lan gis nañ leen fii crise d'autorité dem importer say euh, say cadre dem yenn ay pël tukulóor pël yi Kolda andi leen pour sa meeting d'entrée gis nañ ko fii ay bus Dakar dem dikk jóge fële Dakar transfert yi ay mille électeurs gis nañ ko fii ñu ngi leen di xaar ñun xamante nañ ci Casamance parce que yéen ñi ñoo di transfert fii ku ŋaan fii di village suuf ñu téegal sa ndey ñun Casamance kenn colonisé wuñu histoire Casamance France mi naa fekk la su taxawoon da leen di wax dëgg résistance gis résistance bi ngeen gis nii ci MFDC depuis ci colon yi la le MFDC n'est pas né pour euh, le Sénégal non il est né il est né c'est une structure pour le colon dem leen ngeen autoriser histoire ñu wax leen balaa Gorée Karabane la ñi ñu ko. monument bi fa nekk nii pett na xam potrin samp nañu foofu dañ ko rey ñu samp ko les français ont échoué les anglais ont échoué les portugais ont échoué c'est la seule région boo xam ne kenn colonisé wu ko les français dañuy jaar ci évangélisation ñu on vous attend on vous attend nous on est des rebelles on va mourir rebelles c'est clair Un rebelle, c'est un mécontent. Parce qu'il est véridique. Injustice. yàgg nañ ko dund même ci politique Macky Sall bi ñu ngi dund injustice ci politique Macky bi ngeen di jël toog di ba euh, fekk nit ki dëkkam ngeen di bàkku jënd leen sortez ñun ñenn la ñuy xaar dañu bëgg ngeen jënd jënd leen Ousmane lam leen wax ci conférence conférence de presse soo leen ni ay góor jënd leen. yéen jigéen ñi bu dee yéen seen taat yi da ngeen da ngeen lamb seen taat yi mu dijj sorte génn la fii wax bi du neex tey parce que li gën a salte ngeen def ay doomi Casamance yi jam doomi Casamance yi yu gën a salte ngeen def kenn du leen ko baal non pas possible kenn mënu leen ko baal te ñi ubbi seen lëfa waay seen taat ci internet bi ñu tëj seen gat boo amee li ngeen di wax usmaan ngeen denc ko dem wax ko seen kër téye seen conseil naa fekk yi ngeen doon vous allez nous trouver ici ku xamul buur saay na buur ñef na ndeyam trop lu ëpp tuuru lu ëpp tuuru ku xamul buur saay na buur ñef na laa wax lu ëpp tuuru dudu na jënd sorte yéen ñëpp ñu doon ànd ak yow ñoom sarakaay boobu dañ jënd Ousmane mu ngi def mu ngi def caravanam ah mu ngi def caravanam si vous avez des couilles da ngeen di jënd waaw loolu la quoi sortez da ngeen di jënd fi mu ne nii c'est fini et puis Doudou Ka à partir d'aujourd'hui yow Doudou Ka yow yow laay waxal à partir d'aujourd'hui na nga xoolaat sa bopp. danañ la woon yow bokkoo Casamance waaw kooku dinañ la ko woon nag dinañ la ko woon parce que bu su leen gis Pastef fu mu defee violence toujours yéen a koy presque Mariama Sagna Mariama Sagna fi ngeen ko rey ba léegi ana dossier bi Mariama Sagna ngeen rey ko vous avez assassiné cette dame là ñu jël ko ñu dem denc ko kaño bo tranquille ay doomam ñu ngi fii ngeen rey ko femme bi pour lan rey ngeen ko mi ngi ci biir suuf ay doomam a ngi fi yéen a ko rey yéen waa APR Mariama Sagna yéen a ko rey yéen a ko assassiné dossier bi ba mu am ay presse imbécile yoo xam ne duñu waxkatu dëgg des des journalistes malhonnêtes très malhonnêtes ñàkk jom ñàkk cersa des journalistes alimentaires di fen foog na ñoom ils plus intelligents que le peuple sénégalais wala sénégalais dañuy nelaw gis ñu amuñu bët naka ñu ñu xool amuñu xel xamuñu fu dëgg nekk doomaraam yi boo ñu jógee jël seen presse bi foog na yéen a teg yéen a gëm gën sénégalais yi li ngeen dëgg li ngeen dëggul rek nooy dañ ko fàtte parce que lu ëpp tuuru lu ëpp tuuru comme ay traître ngeen ay jaam ngeen doo la wax kat dëgg tey doo la wax dëgg léegi fii lañuy jàkkaarlu ñu nekk yéen waaw c'est fini le vingt et est naan rek moo ci des et les patriotes vous êtes avertis Pastef vous êtes avertis les sénégalais vous êtes avertis muy yéen waa Casamance muy kati Casamance sankere ñaam futti i rego re futti ka foofu ma fu ka sankenu la foofu furingulori e eh, furingulori e eh, mbi kanuma ñimu ku kenture mbi ku jooma ku ngan manku nga kul siliba manku yax ku ñala ku ñolo ku buj muy jooj ma ji lakkee finista waaye Doudou Ka soo moytul wallahi di nga takk sa bagage nga jënd yow ak sa famille foofu la ñu jëm foofu la ñu jëm dinañ la woon ñun ñoo moom Casamance ñun ñun yow pël nga dëkkoo Casamance yow sa baay moo sa maam moo émigré migré bu ñuy téegal ndeyam fule ak caayam muy daw si Sékou Touré muy daw si di traversé frontière tànku neen ak seen caaya ak seen ëmb ngeen ñëw fii ak mbubu faaru mbaam fa faaru mbaam yooyu moom ngeen dugg si ñun ñun bu ñu dem di wuti ay darakase ci piste bi boobu piste bi mel noonu ni dañ leen di gis ngeen di traversé tànku neen ak seen caaya yu gàtt caaya fruit yu gàtt yooyu moom ngeen amoon ak si mbubu faaru maam ak seen ëmb tànku neen ngeen di daw si jóge Guinée Conakry di dugg si lu leer laa la wax ni te ñi ma ci xam dafa bëri bi ñoo ne ñu bëri ñoo fa nekk attention Ousmane Sonko moom moom gaabu moom moom gaabu Ousmane Sonko bii moo moom gaabu gaabu mu ngi commencé depuis Guinée Bissau ba ñooro bu Kaolack ñooro bu Kaolack 33 provinces nga li Sonko moo ko contrôlé ci reñu C'est le seul qui a osé défier le roi Mama Diankewale. C'est la descendante de Ousmane Sonko. Exemple, Arfan Bessir. <laughs> Arfan Bessir Sonko. yow sa baay lan la def sa maam lan la def sa maam sa baay bu ko Sékou Touré tëbalee dafa daw mu ñëw Ousmane Sonko fat ko wala xam leen loolu yéen pël yi moo tax si ngeen yéen tax ñi saaga ñeneen te ñëw ñu duñu wax xeetu xeeti nit yi mel ni yow comme Doudou Ka yéen yéen ñi naan ko Ousmane na fi jënd yéen war a takk seen bagage jënd Casamance woy dafa am borom dafa am borom histoire Casamance dafa am borom La Casamance appartient au Baïnouk, au Baïnouk. Bouna, le, le, dernier roi Baïnouké, c'est Bouna Gana Massa. Bouna Gana Massa. La capitale de la Casamance, c'est Bignona. Bignona, c'est la capitale Casamance. Baïnouké, Niamon, Niamon, Bi. Niamon, Nyom Casamance, Niamon, Bi. Qui Bignona, Bignona. ñaamoon bii te Bignona moo nekkoon la capitale de la Casamance Bignona Doudou Ka yow moomoo xamuloo foog yéen ñëpp ay opportuniste ay arriviste ngeen ak seen caaya seen maam yi caaya lañ doon sol di daw si Sékou Touré muy tégal seen ndey ñuy daw si di traversé tànku neen di dugg si Ousmane sonk nag empire di Gabou moo ëmb Guinée Bissau dugg Casamance romba dem Gambie romba dem ba Nioro ñooro ki ko contrôlé xam nga mooy kan mooy Ngani Sonko moo yore sécurité Gabou moo ko contrôlé les 33 provinces de l'empire du Gabou les 33 portes di di Kansala turban Kansala su guddi jotee dafay laxasu 33 provinces yi da koy wër ba pare mu jël bopp bi teg ko ci euh, mu ñining Kansala turban di contrôler superviser l'empire du Gabou moo tax almaami Bakary mënul dugg de pël yi ñu dugg de moom rek moo doon duma pël yi ba léegi mu ngi fii sooy jënd Ousmane di tegal sa ndey jëndal jënd leen <laughs> dégg lu leen wax de sorte jëndal ak seen nervi yi nga jëlee Dakar jënd leen go may ma café sorte liggéey bu salte boobu ngeen def mais Ablaye Balde mi ngi nii Balde la sant amul sens interdit il est maire si Tukulóor la il est maire il était maire si le maire sama cousine la doon seen mama euh, euh, mama Maane jamonoy si yow boobu juddoo ko <laughs> tu n'étais pas né Doudou Ka ñun lu ñu xam ci histoire yow xamoo ko yow rek yaay intrus Casamance un arriviste un opportuniste un sale opportuniste bu ñëw ñu xejal ko nga dem jëli ay nervi ñu ñoo jam doomu Casamance yi yow Doudou Ka waaw ko fay tu vas payer di nga fay. di ngeen fay te on vous attend et que la police n'a qu'à prendre ses responsabilités police laa wax policiers yi ak gendarme yi homme de loi yi yéen laay waxal yéen yan waaw bien vrai que dañ leen jox ay ay ay ay ordre li leen jox ordre mënu leen xoxatal sénégalais yi balaa ngeen xam ko rek mu takk wallahi bu takkee bu keroog yi ngeen xam ne non yàlla julli ak nodd la santaane ci jàkk yi waaw. Doudou yow Doudou Ka. non doo campagne buñ la buñ la ko waxee ko galaaj doo campagne wallahi ou pour ja pañ pañ sax si ñaay pour mën a jug yow yaa ko góob yaa ko gar da koy góob. yaa ko kabe ñun dund nañu quarante ans conflit bali di takk miini di takk ñuy xeex di taxaw di xeex ba jàmm am jàmm di ñëw un imbécile comme toi naan fii maa ko moom naka la pël di moom foofu yow de yaa moom Bukot yoo xam nga histoire Bukot Bukot bu Ziguinchor da nga xam histoire am xam nga nu mu taxawee. est-ce que xam nga historique bu code xam nga histoire bu code xam nga ko bu baax est-ce que xam nga histoire Ziguinchor vraiment c'est une honte quoi seen xont yan seen juróom-ñeenti at yi ngeen yor Sénégal yëpp da ngeen échec tooxi doonu si tooxi doonu sàcc xaalis jàmm yéen ñëpp ay sàcc gen yow boo demee ba Macky Sall misé wul ci yow muy misé ci Balde y a anguille sous roche y problème Doudou Ka problème. soo demee ba muy miser ci Benoît Sambou y' a problème y' problème parce que tu ne pas à la hauteur tu n'es pas responsable te Ousmane ne boxe pas sur le même ring ak yenn Ousmane seen bàyyi laa amal affaire xam nga am laa lu mu wax xale bu la yabee da nga koy jéggi dem duma baayam moo tax mu duma Macky Sall ci 2019 duma ko séddoo séddoo jàpp ci atul bu kamalu ñee jaahiloo mooy wala ma atul yàlla kundi al al jaahiliya al yaawu al yaawu tandi atul la taamu Casamance bi ñu seeku turé baal baa seme la naa ngaal ngaal faamaal al ma al ma ñeneen ñi Dabakout ndigol Caayan ndigol itol be lekki botan solima atol le tamu bukot ite bukat bukot londe ale bukot soir londe al funti mun tamu jigéen sorte xay nag xay nag yaayoo la Ousmane Sonko mu ngi wër jënd leen sorte ji pour man jaa jiloo moo jënd leen yéen ñi doon yuuxu yëpp jënd leen ngeen dem attaqué ko ngeen xool mu tégal seen day yéen ñëpp tout le monde et ça sera toujours comme sa waaw ça sera toujours comme ça comme léegi loolu ngeen di déclenché dinañ leen woon Ziguinchor ñun ñoo ko moom dañ leen woon ni Casamance ñun ñoo moom yéen ay gàdd ngeen yow sa yaay moo dëkk Casamance de sa baay dëkkul Casamance sa maam dëkkul Casamance yow dëkkoo Casamance. bu ñuy dàq gars yi yéen ci ngeen di bokk vous allez foutre le camp yéen ñëpp <laughs> jël na ay tamit dañu yàgg xam nañu histoire bi dama la ne seen maam yi bu ñuy jéggi caay seen caay bu ñu ak seen baay bu ñuy jéggi di daw si di dugg si ñun booba ñun ñun ñun ñun ñu ngi dewuti kaju kuloo ci piste bi ma ne ay mbubu faaru maam faaru maam faaru maam mbubu faaru maam yooyu ak seen caay ga tànku neen ak ëmb la pëli dugg see pour ngeen xam loolu ngeen baal ma nag pël nag moom ñi ci ñi ci nekkul traite bëriwul de war rek war rek léegi daal je wax ji daal coow li coow li jeex na ko da ngeen di jënd rek comme yéen voté ngeen seen loi bi assemblée nationale contre terrorisme yéen a ngi continuer di terroriser population bi yéen a ngi continuer di di jam gaay di rey léegi voté ngeen seen loi ak seen régime jënd leen léegi da di jënd parce que nit ki li ngay def da koy assumer góor dëgg day assumer góor gi wal ma sa wax leen maa ngi direct da nga leen assumer waaw loolu la quoi parce que nit ki li ngay def danga koy ñeme ñun ñun ñun Casamance leen dëkk ne Ousmane fa la dëkk Ousmane moo ko ma dégg ngeen lu mu leen wax agressé Ousmane biir si ngeen so da ngay xaru rek. bu dul noonu nu mu téye gars yi calmer leen heure yi yow ko heure yow def nañ la defal nañ leen bagage yéen ñëpp nañ leen bagage yéen ñëpp waaw moom bu bayoon gars kon heure yi Doudou Ka yow heure yi yow doo yi pare nañ ci yow ak sa njaboot sa famille yëpp ak seen koñ bi foofu yëpp parce que bu ñu bayoon gars yi lu ñu paroon pour ñu egsi non ko leneen la ñuy wax leneen la ñuy wax leneen mais dafa fekk rek <laughs> Ousmane nitu jàmm la quoi muy ngi woote jàmm ñuy toog du dul naan violence waaye ay violence ay que bi Pastef ñëwee xool yu dëgër ay violence fii lañuy ñuy woote kërën kërën bés bu nekk ñu duma leen te suñu loxo du leen laal bés bu nekk Ousmane duma te loxoom du leen laal les faits laa ñun bu ñu doon def violence kenn du des Sénégal xanaa xam leen loolu parce que mois de mars bu ñu jëlee bu ñu doon téegal seen ndey mois de mars yéen ñëpp paraar kenn taxawul te ba léegi mi ngi fi de balaa ngeen xam ne mi ngi fi rek leen euh, Macky Sall na defaan lu mu def ngeen xool ñu dolaat buum bi ci mbooy mbooy waaw léegi mi ngi fi duma yi leen duma ci mois de mars ba léegi mi ngi fii bu leen foog na gars yi dañuy arrêté ñun faaluñu seen loi bi seen loi bi ngeen voté yëngalul Sénégalais yi Macky sal ñu ngi koy xaar ci taat nga boo leen sa yow boo sante ka ak Macky Sall bu sante sal boo leen wóolee seen bopp wallahi wal kitaab bi da def leen li ngeen def ngeen xool def leen léegi ngeen takk seen dëbb si makki Sall day doon takk ay bagaasam jënd pale bi parce que bu takkee dootul fay tànk mi ngi fi du fay. te sëriñ si pare nañ ci moom de yan ci poudrière ngeen toog poudrière kos almet rek moo des waaw poudrière ngeen toog poudrière kos almet sandi ci bal yéen ñëpp ay tapet ngeen ay ragal bu ñu leen di noq fii ci mois de mars bi yéen ñëpp dugg ci suuf lal yi kenn jënd keroog Macky Sall moom mi daan jënd di jéem a jaay ñi ñi arrogance keroog ganaar gu kaalaw sol ndoket la gis keroog Macky Sall ganaar ganaar ganaar bu kaalaw sol ndoket la Macky Sall gis keroog ak jinax bu frankolaay du tuus cigarette <laughs> dañ leen duma yéen ñëpp bu du loon xalif tuwaa bi kon heure yoo duudu ka heure yaa ngi ci kaso bi bu du loon du bu du loon euh, sëñ Muntada non yéen ñëpp heure yéen a nga ci kaso bi ay ngemb lañ leen takkal yéen ñëpp nga jaay sénégalais arrogance insolence am leen benn compétence benn compétence am na réew yi ngeen yi ñu raawoon ñëpp dem nañ ñoom Burkina ñëpp ñu ngi conquête ils sont à la conquête de l' espace le Burkina bii pays des hommes intègres amuñu géej mais fan la ñëm ils sont à la conquete de l' espace le Burkina ñu ngi xëccoo espace bi ak puissance yi ñoom ils sont sur le chemin du progrès le Burkina yow Sénégal dan nga créé lan Rwanda dem na Paul Kagame moom lu mu leen rawee dafa bëree Botswana dem na Kenya bi mu ngi départ di dem Burkina moom takarnaase na maari dem na yan Sénégal ngeen yor ko juróom-ñeenti at fii yenn moo tax euh, amu leen jom amu leen jom yéen seen xam-xam yépp fen complot sàcc lii mooy seen bilan fen complot sàcc ak violence agressé foog na ni loolu mooy tax ngeen toog ci nguur gi di ngeen fi jógee Macky Sall ci boppam moo la gën a xam ne jeexal na vous allez mais doo leen quitté Sénégal bii wallaahi doo leen sàcc alal réew mi doo leen rey booy yi xale yi ngeen rey quinze personnes yi ngeen duduka les quatorze personnes yi ngeen rey doomu Casamance yi ngeen rey dossier ñi ngi leen di xaar kenn du rëcc dafa leer da ngeen di gën seen cas rek kenn du fi rëcc Macky Sall sax du rëcc suñ la ko waxee rek ngeen def ko la wallahi il sera traqué Europe bi fu mu dugg dinañ ko fa fekk gis ngeen nu ñu active cour internationale de la Haye noonu lañ koy active danañ ko topp dinañ ko topp. te américain dañ ci dugg parce que plainte yi leen di xaar yéen amu leen chance amu chance de ñëpp pour ngeen xam ko dama bëgg mu leen Macky ci boppam moo la gën a xam ne mu ngi toog ci nen ci nen la toog Macky Sall violence politique xam-xam la politique politique vision la politique projet la amuleen xam-xam amuleen projet de société amuleen benn mérite surtout man yéen ñi nga xam ne yow da gën a amplifier cas bi yéen gën a garaaw ak garaawal APR ci Casamance parce que yéen a yore Sénégal juróom-ñeenti at yéen Doudou yaa ngi yéen ci biir. Benoît Sambou Abdoulaye Bibou Baldé Abdoulaye Baldé Innocence Ntab Angélique Manga euh, euh, Assom Aminata Diatta Abdoulaye Badji Lat Diop Diatta sans compter seen député yenn juróom-ñeenti at juróom-ñeenti at xool leen région Casamance moo tax su ma gisee ñii ànd ak Doudou kasa di yuuxu naan li leen fi def amu leen jom amu leen jom amu fulla amu leen fayda juróom-ñeenti at makisal mu ngi leen di xeex mu ngi xeex Casamance doomu xaraam yi ngeen taxaw naan Macky Sall li la fi Macky Sall deful sara ndeyam Casamance tous la fa deful pour muy leer dama bëgg loolu ngeen xam ko quoi Macky Sall amul bilan Casamance Doudou Ka amul bilan Casamance ban lan fi liggéey. Macky Sall su amoon bilan dina jënd le vingt neuf bii vingt neuf de conseil des ministres vingt neuf septembre bi naan ministre mi woy woy gaaw leen damay defar aéroport Tobol xamul sax fan la site aéroport Tobol toog dossier aéroport Tobol xamu ko sax parce que dafa tiit ci élection yi Balde il va partir. parce que Ziguinchor changement la ñu soxla Bignona moom Lamine Keita dana dem parce que changement la soxla da dégg ngeen Ousmane lu ma leen wax soxlaw ñu état bi pour tabax Casamance mu dem non non non non parce que lépp lu war a tax Casamance développé ba Sénégalais yëpp ñoo jël ci seen wërsëg mi ngi Casamance volonté politique la ak xam-xam mais du violence ak ignorance ak impolitesse arrogance déglu leen ko ci discours On n'a pas besoin de l'argent de l'État pour faire la Casa parce que nous avons tout. Volonté politique, rek avec savoir-faire, avec xam-xam. ay dëgg ay naan ingénieur de pont ban pont pont Émile Badiane a ngi ni mi ngi rey pont Bayla baa ngi rey pont jululu mbaa ngi nii day daa day fecce pacanga xool leen ban région moo gën a risque Casamance mais c'est parce que tekkiwu leen dara loolu la loolu rek la seen défaite la amu leen compétence amu leen fit bi amu leen sañ-sañ bi amu leen xam-xam bi amu leen xarañte bi c'est ça le malheur parce que vous avez tellement menti à la population bi ngeen jël nguur gi ba pare vous êtes devant les faits accomplis ngeen devant l'escalade de votre incompétence là vous imposez l'insolence et la violence à la population c'est ça c'est flagrant manipuler la justice manipuler la police manipuler la gendarmerie croyant que yéen échappatoire nga sénégalais bu wax jóg ngeen tëj yaakaar ni loolu mooy saafara mbirum déedéet les gens vous attendent wallahi di ngeen xam ne nguur yàlla rek moo du jeex yéen di ngeen yor du nguur dënkaane la te bu boobaa yow Doudou Ka tu yow ba léegi weesu yow Doudou Ka parce que li ñu la wax leer na de ñun ak yow ci biir Casamance œil pour œil et dent pour dent soo yëngoo rek ñu tegal sa ndey liggéey bu salte bi nga def nii boo yëngu ñuy tegal sa ndey wax nañ la ba pare de c'est averti c'est fini. danañ la woon yow boo yow moom loo Casamance Macky du ci mën dara du ci mën dara boo amoon jom point ba Badiane a ngi ni su fekkee amoon nga jom góor nga am nga fit am nga jom la ngay woote mu ngi ci yow point ba Badiane baa ngi ni ñaata at fen ngeen ay fen yéen ñëpp a fen fii. vous avez tous menti à la population de la Casamance woy appel d'offre bi def nañ ko Eiffage moo gagné vingt cinq milliards la alors de semaine bi dinañ ko commencé këriñ këriñ tous fen que de la mensonge c'est une honte parce que amu leen jom boo leen amoon jom di rus jënd pour jàkkarloo ak citoyens yi nekk Ziguinchor à plus fort raison waxatuma la sax dem di andi violence ba ay paaka jam paaka di gaañ ay nit jam paaka te ki nga xam ne yow Macky Sall daf la kaj yi amuloo benn poste de responsabilité politique yow Macky Sall misé wul ci yow pour maire Ziguinchor Balde la jël misé wul ci yow pour président départemental kon yow ban enjeu nga am tu es en crise d'autorité tu veux te chercher une base yaa ngi daw fu ne for sagaro ambulance yu bon yi nga xam ne dañ leen sandi fii ñëw di nax ngaaka yi nekk ci àll loolu mooy développement c'est ça le ça loolu mooy développement loolu eh c'est kuyon kaare laa dëbb ci guddi di yuuxu këran kër wëy lii la def def fii def lan ban bilan la Doudou Ka Doudou Ka def lan quoi lan koo xam ne ñemewul sax ngaa pour wax Macky Sall dëgg yow xool leen si nga soog nu mu mel yan Balde sax moo leen gën noonu la jë gën te Balde nag il faut léegi doy na quoi Balde ci bopp il faut bu setee parce que bu jox ñu mairie bi ñun ñu won leen nii lan mooy liggéey dégg ngeen président Ousmane Sonko lu mu leen wax xaalis bu war a defar Casamance defar Ziguinchor soxlawul ci gouvernement bi. déedéet waa Ziguinchor nag ñoo war a am fulla ak fayda ngeen xam ne coono bi dafa yàgg seen doom yi ñu ngi ci galère ñii yor réew mi juróom-ñeenti at mënuñu li andi liggéey pour seen jeunesse bi seen doom yi yéen ñëpp a ngi galère atul bee almantadooku la abe yuuroo la yaayoo la Casamance Ziguinchor Kolda surtout maire yoo allo ale maire yoo ta aliyaa di Ousmane mu fo mu koɗo muññanta casemasdadala muññanta maire yo dadala développement am man solala euh, euh, état du sénégal yaddi ñinde nuga a paretale aɓe parelinne léegi yéen waa jigéen so bu fekkee bëgg ngeen dara bëgg ngeen mu tekki ñun bëgg nañu dara danañ jël maire bi ñu jox ko lan mooy misaal bi parti bu mu jiitee juróom benni at la am ak genn walla mu duma ñu fi nekk ñëpp tey politicien bu taxaw Sénégal moo la ëpp crédibilité du seen moroom ñoom ñëpp musul sàcc xaalisu Sénégal musul corrompre kenn kenn musu ko corrompre chance boobu la ñu am fii ku fi politique moo la gën a crédible une jeunesse malsaine, inconsciente. Vous passez tout votre temps sous les manguiers à prendre du thé. di xaar imbécile yi sàcc suñu xaalis ñëw di leen jox ay junni ñaar junni doomu aadama Omar Bala sa sa Omar Sow la xaw ma Omar Sow la xaw ma de de de kii il est coutumier des faits il faut que ñu jóg ñu régler problème am euh, Omar la euh, je sais pas comment la Euh, Alpha Omar Sow c'est un coutumier des faits mais boo jëndee rek boo jënd ñu te yaa ngi jigéen sow soo jënd ñu tégal sa ndey jëndal jëndal ak yéen ñëpp fi mu ne nii c'est fin prêt dañuy pare ba pare. yow alfa yow Alpha Omar Sow yow mi doon yuuxu ci réseaux sociaux yéen ñëpp xame nañ leen ñiy jóg di yuuxu di xataraayu keroog foofu ci buntu buntu dudukaay yéen ak dudukaay yéen ñëpp laa wax yëpp yéen ñëpp ñi fa ku fi jënd ñu téegal sa ndey jënd leen werante ci xoral tekki tubéy sortez affaire bi loolu la Macky Sall mënu ci dara bàyyi Macky Sall mënu ci dara ku fi jënd ñu téegal sa ndey. pour muy leer sortez yan la ñuy xaar jëndal jam ay nit ay paaka jëndale Doudou Ka na jënd parce que ba mu defee liggéey bu salté boobu par dafa ne mes mes la def même teg na meles parce que amul fi ñemewul <laughs> ñemewul ñemewul na jënd Doudou Ka na jënd mu promené Ziguinchor du ñibbi këram jënd leen te c'est fini yan jàmm doo leen ko am Ziguinchor Doudou Ka ba booyee ba mu xam ko ah. jàmm du ko am Ziguinchor parce que c'est un défi et nous allons relever le défi là on est prêt yan waa APR benn bokk yaakaar ci biir Ziguinchor lem leen seen genn ñi ci bokkul bu leen ci dugg waaw bu leen ci dugg de parce que Macky Sall du ñëw bu tàggee rek day jël avion du ñëw de waaw du ñëw parce que fi mu ne Ziguinchor yëpp dañ leen mere liggéey bu salte bi ngeen def te ñu bëri ñi nga xamoon sax àndoon nañu ak yéen ñu bëri dem nañu. parce que musul am Casamance jël andi kii doomu Casamance yi jàmm di rey amul lii musul am jamais sax nervir wax nañ ko Macky Sall nervir biir Casamance nervir benn nervir du jëm du dégg dañ leen di découper déchiqueter yéen boo leen dëgg ngeen téy seen doom yi de yéen laa wax waa dakaar seen doom bu nekk nervir téy leen ko bu mu ñëw waaw bu mu ñëw de parce que bu ñëwee du dellu on est averti jeex na c'est fini parce que président dafa doon dem réunion inaakuwaa ñoo ko woo mu dem di leen déglu ngeen jënd léegi moom pare na jën leen affaire bi kay yomb na comme yéen da ngeen rëy lamiñ da ngeen am fit. ay góor ngeen jënd leen sortez albo na albol ta mbaal bee baa semelale albo panji saksi ñaayu muy buróom dudu kadi sankene ñaaw ndipp kala kew pour di pour man jaw atol baa bee alman doomu xaraam yi ngeen doon bu leen lii mooy politique doo leen dem politique xam-xam la ci Casamance ñeent fukki ak Casamance mu ngi ci fitna bal yaa ngi tàkk fu ne yéen nit ñi ñu ngi xeex plateforme pour la paix en Casamance ñu ngi xeex pour jàmm imbécile bu mel ni Doudou soo buggee lu neex sa baay Macky Sall nga di wut ko feneen mais doo ñëw jam doomi jàmbur yi di leen rey pour lu neex Macky Sall parce que ay criminel ngeen yéen ni yéen a ngi rey quatorze quatorze sénégalais xale yu ndaw ki ci gën a tuuti douze ans la am dossier bi mu ngi leen di xaar du amati de Doudou Ka laa la yow dootoo amati jàmm Casamance booy boo nga xam loolu lenn de xanaa nga gàddaay ñibbi Guinée Conakry wala nga dem des Dakar quoi parce que foofu lañu jëm ak yow tu seras traqué li gar góob ko comme yaa ko déclenché assumer sa responsabilité war nga sant Ousmane Sonko parce que ba mu téyee maîtriser gars yi bu ñu dem da ngeen foog ne yéen yéen ngeen doon yuuxu noonu yéen yéen a kërën kërën doomu aadama yi mel ni yéen kenn dëkku ji Ousmane bu leen ëpp leen doole Casamance Ziguinchor yéen ëpp leen ko doole. yoo wax ay ay ay ay arriviste ci ay ku ci nekk di xotteeku ci réseaux sociaux yi ratatatatate warul wax lii war leen la wax warul def lii leen la war def comment ça regardez-moi ça non papo dañ leen di traqué <laughs> yow laay <laughs> la non ñii duñu bandi ñii duñu bandi barke salatul fatiha ñii duñu bandi ils sont pas des gangsters hay ah yooyu tamit yow dund ka traqué ko dafa yomb anañu ñoom ñëpp seey nañu kenn du jënd <laughs> li ma la lu leer la de du ñu jënd de golo golo moo la gën a xam kër gu bëri xaj dañ doon golo-golo di dëmmal dëmmalu kenn du jënd ñoom ñëpp ñu ngi ne mut toog seen kër ku ci jënd ñu téegal sa ndey yan boobu côté foofu laa la wax noonu euh, euh, euh, bu boobu laa koñ boobu laa la wax jënd leen ngeen dem dañ leen xaar ku jënd doo ñibbi sa kër et may wax le les jeunes la le Omar Sow là il faut pas qu'il retourne à Dakar. Omar Sow euh, jeunes yi jeunes jeunes jeunes yi bu leen bàyyi jàkku mu jikkat Omar Sall man man Omar laaj jàkk ma laaj Dakar omarso il faut le traquer il faut pas le laisser rentrer sur Dakar ce gars il doit pas rentrer oui il faut le ta c'est-à-dire il faut le il faut il faut le traquer matin midi soir il faut pas le laisser retourner. il faut pas le laisser il faut pas le laisser waaw je m'adresse à la jeunesse de Ziguinchor là ne laissez pas ces gens là amenés par Doudou qui ont qui sont venus faire sale boulot retourner à Dakar que personne ne retourne à Dakar kenn bu dem waaw xam nga dañ leen ko wax gëmu ku ci jëli ñu téegal sa ndey waaw sortez réplique de Doudouka ñu la non ay ay réplique conférence de presse i n'a qu'à sortir s'il est homme Doudouka ay réplique de Doudouka non il n'a sortir boy fii conférence de presse amu fa ay réplique non góor nga dangay ngay jënd ay ñëw ñi na jënd ay conférence de presse toog ci micro di wax réplique da ngay jënd soo nekkee góor da ngay jënd Il faut sortir. Ah, elle réplique. Sortez. n'y a pas de conférence de presse. Parce que, dans ce tour de pareil, tu vas appeler les journalistes une réplique de quoi Tu es un poltron si tu es un homme. Il faut sortir. tu vas appeler les hmm. pour lan fii amul conférence de presse fii xeex la xeex góor nga dangay wàcc sur le terrain am ngeen fit wàcc leen sur le terrain xeex la conférence de presse pourquoi yow tu n'es pas candidat yow doo dara tu tu n'es rien pour lan lan ngay wax réplique à kii Ousmane Sonko lu mu la wax pare na ci daf la daf la menacer lancer le défi sooy góor da ngay wax boo leen jëlee ñuy tégal seen waaw moom mu ngi noonu jën jëndal duduka sotte ay conférence de avec ces journalistes là ay naafeq ay seetaan falli looy réglé kaay ah. Ah, Ousmane génn na il est sorti. <laughs> borom dëkk bi jënd na barke Nabil Moustapha ma ne Doudou Ka borom Ziguinchor a ngi noonu waaw borom Ziguinchor a ngi noonu jënd de waaw borom Ziguinchor jënd na mi ngi nii Doudou Ka warante xuxaan tekki tubéy sooy góor na jënd boo jënd ñu tegal sa yow ak ñi nga àndal jënd leen jënd leen sortez <laughs> nii de <laughs> barke nabil Moustapha ay <laughs> la la la Sonko yaa boo Sonko ni sañang i kañine fo suma tamba koy suma tamba fin kay ni balanta kumina kana muru koma afele aca aca aca jëlal Ka sortez ñiy wax ci réseaux sociaux yi mu ngi noonu résultat baa ngi ni tontu baa ngi nii ñiy toog ci réseaux sociaux di xotteku la réponse est là <laughs> la réponse est là waaw naan ay live activiste toog ci réseaux sociaux xamu dara jàngu leen jonguwu leen amu benn xam-xam munu leen toog ci benn plateau ngeen def débat débat constructif munu leen ko analyse bu positif munu leen ko xamu leen ko seen réponse a ngi nii voilà mi ngi nii voilà la réponse est là gis ngeen ko Doudou Ka yow il faut pas aller se réfugier derrière les micro la pour soi-disant euh, réplique la réplique c'est sur le terrain il faut sortir quand on est homme quand tu as des couilles là il faut sortir Doudou Ka toi avec tes nervis là sortez ku fi sorti ku fi jëriñ ñu téegal sa ndey dañ leen woon ñun Casamance ñoo ko moom Casamance kii waaw moom moom Ziguinchor mi ngi noonu xool ko mi ngi nii de weddi gis bokku ci mi ngi ni intact mi ngi nii waaw werante xuuxaan tekki tube werante xuuxaan tekki tube ku fi yëngu ñu téegal sa mi ngi nii waaw Doudou Ka mu ngi laxu ci ginnaaw ay journaliste naan conférence euh, euh, euh, conférence la xaw ma nag pour réplique réplique amu fi kii moom moom Ziguinchor moom moom Casamance mi ngi nii waaw surtout Ngaline Sonko le descendant de Ngaline Sonko le lion de l'empire du Gabou gis nga Daliñ Sonko nu mu contrôler les 33 provinces de l'empire Kabou noonu la Ousmane Sonko di contrôler Casamance ak Sénégal mi ngi nii. mi ngi nii de xool leen oto yi mënul dem marée humaine jàng mu boten kee baa semele jàng duduka wallahi ni bote mool bee baa semele funti jippur man jujuk panji saksi mu jukkulu si jànkadi mbiji mujji de nervure babu manku jo ku buj bu kanaka ku ñila man jujuk sorte jënd sorte jënd leen laa wax mi ngi nii mu ngi nii de <laughs> xool leen gaañ yi xool leen partagé leen vidéo bi partagé leen ko partagé leen vidéo gaañ yi partagé leen partagé leen ko partagé leen aimé leen bi ngeen partagé ko mu dem partagé partagé kii c'est la réponse c'est la réponse voilà <laughs> c'est la réponse partagez le vidéo les gars partagé leen ko ñu woon activistes yi nekk ci réseaux sociaux yi ñi nekk di xotteeku suba ngoon guddi bëccëg pour woon leen ni le patron est là waaw. parce que euh, il va falloir que euh, euh, ku ci nekk nga xam ne ku ci nekk xam nga ku mën sa baay. ku ci nekk xam nga ku man sa baay xam ne na jënd ay conférence de presse du Ka dina tapet traite weesuwul tapet weesuwul ngay dem ngay dem di laxu ci ay ay journaliste naan conférence de presse ban conférence de presse def sa sa dégâts sa taw bi doon na ba pare dem di laxu borom a ngi nii il est mi ngi nii borom réew maa ngoog Ziguinchor borom Ziguinchor a ngi na ko Macky Sall waaw Macky na ko gis waaw l'enfant chéri de la Casamance elle est là l'enfant chéri du Sénégal il est là le patron <laughs> ah, wallaay ñëw la xam nga ki moo tax gis soo see ñi ne soo xamlee tubéy bi ngay sol sa taat dañ la koy won waaw duduka danañ la won ni yow xam xamloo tubéy bi ngay sol sa taat tey live bi du neex mukk tey non du mun du neex parce que da ngeen def jikko bu salte lu salte ngeen def bilaay kenn àndu ci waa jigéen soke même am na sax waa sa sax ànduñu ci li def waaw même waa APR ànduñu ci seen militant ñi ngi leen di bàyyi seen allié yëpp ñi ngi rocceeku di dem Pastef Mendy dem na docteur Mendy il est parti dem na ñu bëre le le euh, euh, docteur Mendy dem na te y aura beaucoup qui vont quitter APR parce que le le le sale boulot que Doudou Ka a di ngeen dem. La Casamance, c'est la solidarité. Khalifa Ababakar, bienvenue. La Casamance, la Casamance, 40 ans de conflit. 40 ans. Dret du Tourou. ay mine di explosé que ne ba léegi kaa ngi résister yéen kay bu dee da ngeen di xeex dem leen fekk Salif Sadio ci biir àll bi dem leen. armée Sénégal dugg na ci àll bi dem def fa cinéma ba mu sonn mu ñibbi si ñoo toog for ay bo jël ay ay xottu bool yu xam ne yu màgget dem jóge fa ñoo egg si ñoo toog dem ñun ñu ngi fii déggu leen ñu de Salif Sadio bi ngi ci àll bi ñeneen ñu bëri ñu ngi ci àll bi ba léegi. ñun kay ñu ngi leen di xaar rek Doudou Ka moom booy jënd ñu tégal sa ndey yow ak ñi nga àndal Casamance am na ñu ko moom Ziguinchor am na patron il faut ngeen xam la Macky Sall xam na ni Ziguinchor am na ko ko moom am na ko yow Doudou Ka daggoon li ma la xanaa dama la ne sa maam ak sa baay bu ñuy daw si Guinée bis Guinée Conakry Sékou Touré bu muy tégal sa ndey ñuy daw si ay caaya lañu sol caaya ak ak mbubu faar maam ak omb tànku neen ñun boobu ay ndaw lañu. ak ma bëree waa Ababacar waaw